gannaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko bu wutu ñu julli ñu ci yenent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax mbokk jullit yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nekkoon ci téere bu barkel bi ñuy alfiya bi ñuy wax jawharatul gharra sirati abil abbasi saaxibil yadi al bayda nga xam ne dafa tënk jar jaaru Cheikh na Ahmad Tiyaani mu wax na sëriñ bi mu demee mak ci année muy mille cent quatre vingt seize wala mille cent quatre vingt six autant pour moi euh, daje faak Seydi Ahmad ibnu abdul karim mu proposé ko benn turu yàlla boo xam ne daf koy zikr bu ko zikree am ci alfathul akbar su pare mu mën a tëju nag waris di feeñ ci nit ñi mais eh, Mawlana Seyd Ahmed Tiyaani radiallahu anhu ci xolam bu yaatu boobu mu wax ne du d'accord ci lool ndax moom dafa bëgg lu jariñ àdduna bi yépp waaye bëggul loo xam ne intérêt personnel rek la tax mu gàttal ko moo tax mu ne lakin bida cheikhu li annahu yurid nafaa alcibaadi jawhara aljumaani fa cheikhu ahmadun fa abdulkarimi radiya anhu xaaliqu linsaani lakinahu actaa li cheikhina alimam asraara gaybin fi zura alkitmaani wa bacdahu rajaca lilmisra ila alkurdiyi liliifaa bila nukraani wa bacdama kaashafa kurdiyi maa bihi sa'alahu can mushkilin xayraani faataxahu cheikhu bilaylin bacdahu dacaa bi ahlil misra lil qurbaani kal culamaa fa sa'aluu maa cindahum min mushkilaatil gumdi lirrabbaani wa ataxahum fiihaa biwajhin waadixi fa baharal culamaa litibyaani walfatxi walkashfi fa jaa'uu yatlubuun ru'yata wajhi sanin nuuraani wa baadama qaddamahu lkurdiyu waadaahum bilfawri liljiraani saara xalifatan bidi tariqati tariqata alxalwati biddamaani wa rajaca tijaani baxran tunusa fahajjuhu mabruratu lityaani summa rajaca ila alsaxaara yacbudu rabba alcibaadi saaxiba aljawlaani wa daaka qad kamula daatan wasifaat والروح في عبادة الجثمان لملا وقد نضج ما يحواه صدر له من سره الفيضان هذه الآونة فالشيخ يقضي نهاره بكل يقضي نهاره بصوم حاني يقضي الليالي بالتهجد على تلاوة القرآن والفرقان yarfudu yarfudu kullan xalwata ictizaalihi laa yartadi illa almacaali bidaani xataa bicaami sittatin wa arbaciin min cumrihi ramzu waliyi daani xaarathu akbaru alcinaayati alcali kawnan huwa almugiisu lilakwaani daaka fi saxaara bu shamguuni bifatxihi alakbar bilyaqdaani kawnan huwa almuraadu lilxilaafati fi tilxaliqati bila buhtaani wallahu yucti maa yashaau sahmahu liman yashaa yucti bila xirmaani wahaabu walquduusu walrauufu baari lbaraaya xaaliqu linsaani wa daaka fadlu llahi yucti maa yurid liman yurid fi maa yurid bil'aani yaa rabbi farda littijaani ahmadu ma saxbihi wa ahlihi nuuraani mawlaana saydi abdul karim ahmad ibnu abdul karim bokk bi mu xamee ne Cheikh Ahmad Tijaani yitteem ëpp na di tëju ca la ko jox ay secret wa baada moo tax mu ne fa cheikhu sëriñ bi mooy ahmadun fa abdul karimi radiya anhu xaaliqul insaani muy précision wa baadahu gannaaw nag loolu mu tàggoonteeg maamam sallallahu alayhi wa sallam tàggoonteeg madina raja mu dellu nag lil misra ci égypte pour matal kóllëre ilal kurdi muy sëriñam mahmudul kurdi lil ifaay ci matal kóllëre bi nukraan ndax ñu bari bu doon ñoom mën nañ jaare foofu teggi dem ñibbi ndax ku jóge makka aji ba pare dinga nga namm sa famille waaye dafa delluwaat ci Seydi Mahmoudil Kurdi bi nga xam ne tàmbali woon nañ lu yeggagul mu mel ni dafa demoon ci tanakkur pour tarbiyewu ci moom léegi nag bi mu dellusee ci aj gi ba toog ak Seydi Mahmoudul Kurdi al Iraqi ñu waxtaan nag euh, carrément ñu waxtaan réellement ba Seydi Mahmoud Kurdi xam ne ndekete kii mu toogal doo ab taalibe simple wa baadama kaashafa Kurdi Seydi Kurdi nag bi mu découvrir dëgg-dëgg ma bii li nekk Cheikh na Tiyaan yi moom ci la ci profito sa alahu mu laaj ko an muskilil xayraani ci ay question yu ko jaaxaloon moom te képp koy def tarbiya effectivement jànkonte nga question yoo xam ne dinga bëgg un supérieur boo ko laaj mu mel ni daf ci garde woon nag ay question yu bari doon wër kum laaj waaye bi mu gisee Seydi Ahmed Tidiane euh, mu xam ne kii daal dëgg-dëgg âge bi mu am ak réalité am du benn ci la tëjoog moom nag ci guddi di ko laaj par question benn par benn waaye bu mu ci laaj Seydi Ahmad Tiyaani ci leeram gu bari gi dana ko tontu ba détail ya ca aju sax dana ko wax moo tax mu ne faataxahu ubbee na ko Cheikh na Tiyaani bi lay lin ci guddi baadahu léegi nag bi mu xëyee moom góor gi xam ne moom ki mu amee woon rek ndeke li mu ko fooge woon ëpp na lool donte bi mu ko njëkkee gis dane ko nang ma soppil sama jëmm ji mu doon wurus donte nee na ko tabaarakallahu anta mahbubun inda allahi waaye yooy yëpp teewul nag découvrir na beneen facette ci moom boo xam ne bokk ak ba mu jokkoon a xam daa nag ci la woo bi ahlil misra ci borom maanaam waa misra lil qurbaani pour ñu ñëw jege si Cheikh na Tiyaani kal ulama comme sëriñ si dafa xëy yónnee ci sëriñ yi gënoon a mag ñi nga xame ci ay téere la ñuy gàggantikoo ak ñiy gàggantikoo ci lumière ne leen ah ku fi am ay question de profitol am naa fi gan goo xam ne musuma gis ku mel ni moom te day ñibbi borom xam-xam yëpp faq kenn ku ne indiwaale question yàlla tere woon nelaw te bu dee ci âge ñëpp presque xaw nañ ko mën a jur waaye ñoom ñëpp fasaalu laaj nañu ma indahum lan nekk ci ñoom ci ay question <clears throat> min muskilaatil xumdi ci ay question yu xóot rabbaani ci Mawlaana Seydi Ahmed Tiyaani mii waaye ku ci laaj dana la tontu di la tontu ba tontu la loo jotul woon laaj nga jommi fatahahum fiha ubbee na leen bi wajin waadixi ci anam bu leer ba bëxëra mu jommal al ulama borom xam-xam ya li tibyaani ngir leeralam gi yemul ci leeral gi rek waaye wal fatxi ak ouverture bu yéeme bi mu amee yëg nañ ko ci tontu yi wal kas wi yëg nañu itam nekk dévoilement la am ndax lii nit mënula la jàng rek ba xam ko ndax xataa moom même bu lay wax ne mu ngi ci téere sàngam day mel ni dañ koo tegal écran bu ubbi page boobu mu janoog moom di la wax ba exactitude bi daf lay jaaxal fa jaaw boroom xam-xam yépp ñëw yatlubuuna di sàkku ru'yata wajhihi ngir gis jëmmam ndax loolu nag bu amee day commencé am bës ci dëkk ba am intishaar ñëpp di ko waxtaane bu doon télé tey ji ñu ne télé yeeg rajo yi moom lañuy ame amee léegi nag bi ñu waxtaaneek moom wane ne <clears throat> am nañ fi gan goo xam ne daal miracle yàlla la lumu xamul lañu xamul waaye xam-xam moom daf ko nan léegi nag ñëpp bëgg a ñëw ñëw gis ru'yata waji seni nuuraani laaj ko seeni laaj mu tontu ba yàgg nag Cheikh na Tijaan nag ne sëriñ bi man dama ne ci yoon damay dellu moom mosul am jot radiyallahu anhu léegi nag ci lañ wax ci ali kalaj gi Seydi Mahmoudul Kurdi yi nag tëjoog moom jox ko yemu bëggoon yëpp wala yem ko bëggoon a jox yëpp ba pare nag ijaazal ko itlaaq ne ko man fii ma toll nii may xalifa ñeent fukki tariqa tey ji maanaam ñeent fukki tariqa maa nekk seen xalifa général tey waaye mboolem tariqa yooyu yëpp dama la ci bëgg ijaazal bés ni tey nga nekk seen xalifa ndax manit sama mission léegi mu jeex Cheikh Tiyaani bokk na nag ci tariqa yooyu mooy tariqatul xalwatiya tariqatul xalwatiya tur wi rek niru na ko mooy tariqa boo xam da tëju rek ci xalwa Cheikh nag nekk li ma war a jariñ jaam yi tëju xalwa du moo ko may Euh, léegi kon wanuma nekk xalifa tariqa boo xam ne damay génn di dem ak a ñëw mu ne ko waaw yooyu yëpp amul solo euh, léegi jëlal rek mu ne ko léegi ku ma xas may werd est-ce que garantie bi mu war a àndal da man duma ko mën a def Seyd Mahmoud Kurdi ne ka laqin laqini naas joxal nit ñi tariqa bi rek wa damaanu alayya man maa warlu garanti bi ci nekk yëpp ci ngay dégg ne xëy rek ber sa tariqa te amoo garanti kooku wóorul bu yombee fii ci àdduna itam yowmal ci man nga am jafe-jafe ndax du wu képp ku la topp yow lañ koy laaj yow sëriñ bi ah bu mu nekk nag ma amee garanti bi Cheikh Tiyaani ci waxin sañ a ñeme moo tax mu ne wa baada ma qaddamahu kurdiyu ginnaaw gi nag bi nga xamee ne qaddamal na ko imam kurdi def ko xalifa waada waadaahum mu tàggoonteeg ñoom bil fawri ci lu gaaw lil jiraani dem ci ay dëkkandoom nag léegi nag mu ngi bëgg a ñibbi ku dem màkk ba ñëw war nga war a dem nag sa kër ci waxin ñu ganale la waaye saara mujj na laata muy jógee Égypte doon xalifatan xalifa bi di tariqati ci tariqatul xalwati muy tariqatal xalwati bi damaani ànd ak warluk Seydi Kurdi moom nag moo jox Cheikh na Tiyaani benn sirru bu foor ismul azam ak yamu aju nekkoon ak ilzamil xalwata wala ahda wal mahabba xata fatx boo demee nag ba ñibbi ba nuyu say bokk berul nag nga toog di jaamu yàlla ndax kuy gas teen war nga am patience su di gas di jël peel bi di teg fële suuf si di gas jëme ko tabaarakallahu àpp ko ci ba ba ngay gis ndox waaye ñu jox la peel ak pikk foo gas benn mètre bàyyi ko fa demaat gas feneen foo gas benn mètre bàyyi ko fa demaat gas feneen di nga gas dëkk bi yëpp te doo gis ndox bari na ku yor turu yàlla bari na ku yor kurus naan maa ngi nii ba ma dalee weer rek léegi ñaar fukki at la fanweeri at la juróom fukki at la waaye gisaguma dara parce que da nga toogul yem ci dara da nga toogul fenn da ngay toog fenn ba pare yem ci dara ba pare jël sa xol wékk ko ci benn sëriñ toog nag nga gas ndax yooyu yëpp boo ko defee te toogoo gas itam du la jariñ dara moo tax Cheikh na Tiyaani ba mu ñibbee saara mujj na xalifatan bi di tariqati tariqatul xalwati bin bi domaani après nag war a jaa delluwaat na ñibbi ak Tijaani baxran ci géej tuunusa jaari ji Tunisie muy ni mu defoon dugge Égypte jaar romb Alexandrie romb Carthage dem ba Tunus wàcc fa muy fa mu jugee woon fa mu quitté woon fañ ko doon proposé université bi foofu la wàccaat nga xam ne fa la tàggoonte woon ak tabaarakallahu euh, Abdou Samad Arrahawi nga gis ne ajam gi au delà de aj na makk waaye donn na fi bu doon nit ku mar la ñuy wax ne naan na fi lumière ba mu ngi gàlla ndax gis nga daje na xutbu zaman bi di Abdullahi al Hindi mu jox ko li mu ko doon xaare yëpp wax nañ ne xaar na ko quarante ans ñii ne trente ans ñii ne vingt ans waaye ala kulli xaar na ko ay at mu jël héritage am yëpp te héritage bi jógewul fenn ku dul ci maamam sallallahu alayhi wa sallam mu demaat madinatu munawwara au delà de aj ji jëlati fa itam héritage ba ko fa doon xaar ci Seydi Ahmed ibnu Abdul Karim as-Samban moom itam ak proposition yam ko fa jox yëpp ak baatin ba mu ko fa jox mu ñëwati Euh, del jël xilaafa mahmudul kurdi yi nga xam ne xalifa ñeen fukki tariqa la mu jël yépp itlaaqal ko jox ko ko bokkul ak nag xaqaayiq yi ko fa yàlla joxal boppam mais trio bi rek doyoon na sëkk mu dellu sewaat tunus bi nga xam ne moom it amoon na fa daman ci Seydi Abdou Samad Arrahawi ci sëriñam nga gis ne kon aj gi moom fees na dell dell dell bokkul ak ñun ñi aji ji dem di vidéo indi ay photo aki jàllaabi ak ay kurus moom limu indi lumière bu fees dell la ci ruuxam moo tax mu ne fa xajjuhu ajam googu daal mabruratun aj gu ñu nangu la mabruratul ityaani aj gu ñu nangu am na ay màndarga yoo koy xàmmeewe bokk na ci baax jóge fa gën a baax bokk fa jóge fa gën yiw bokk na fa gën a ragal yàlla bokk na fa jóge fa gën a toppwaat sa diine et cetera léegi bi mu ñëwee Tunus teg ñam fa bàyyi woon su maraja mu continuer rek dem euh, ci wàllu mm, voyage terrestre ila Sahara ba ci désert bi nga xam ne Aljazair la après dem Aynu Maadi nuyu ay bokkam léegi nag mu soog a génne tuuti ci fu ñuy wax qasr bu Shamghun yaabudu di jaamu rabbal ibaadi borom mbindeef yi saaxibal jawlaani mais di tourner ci façon yenn village yi léeg mu dégg nitu yàlla fenn dem fa ziyaare ko pour quelques jours delluwaat léeg-léeg mu nam benn nitu yàlla mu bëgg a ziyaare ci bàmmeelam mu dem ziyaare jiwaat dellu si wa zaaka loolu nag xad kamula ndax léegi nag seen atiyaani commencé na mat góor zaatan ci jëmm sikkim bi génn na jëmm ji taxaw na ba nga xam ne góor góor a ngi nii wa sifaat ak ay melokaanam commencé na ñor war ruuxa ruuxam itam ñor na fi ibadatil jusmaani mu dëkkee jaamu boromam nag liñ naan luy jot jot na gannaaw dee waaw bu ko defee nag daana donte moom amul jeunesse bu buñ naan daan def lii daan def lii waaye nit bu demee ba àgg ci âge quarantaine yi luy jot jot na ci moom gannaaw de lim la waa pourquoi pas manta mel noonu waxat nadaja te ñor na xomm maa yax waaxu li mu làq làq sadrun lahu dënnam min sirrihil fayadaani sirru bi war a tuuru ci àdduna bi bu fekkoon sirru bi dañ koy togg ci dënnam leer yi dañ koy togg ci dënnam ah léegi nag mu ngi commencé bax pour jëm ci ñor kon du mën a toogati ci nit ñi fow mu dem isolé wu fi hadihi al aawinati ci jamono yooyu nag fa cheikhu cheikh na tiyaani dafa beru ci àll ba yaqdi di passé nahaarahu bëccëgam bi sawmin ci koor xaani yow aji sopp ji cheikh na tiyaani toute la journée dafay woor yaqdi layaali guddi gi yëpp mu passé ka bi tahajjudi ci jaamu boroomam ala tilawati al qur'ani ci jàng al qur'an wal furqaani ak furqaan ndax Cheikh na Tijaan bu toogoon di jàng alquran masalan am ma yetta mu koy jàng moom li mu ciy dégg ci ay réalité ak ay xaqaayiq bokkul ak yow mi nga xam ne da nga tiim téere bi di jàng wala yow mi déglu sa benn eh, audio alquran di eh, di dégg bokkul moom day déglu quran bi di déglu furqaan bi maanaam day gis réalité bi ak xaqiqa bi maanaam day gis texte bi ak réalité bi dëkkee jàng kaamil den wax nañ ne bés bu jot daan wàcc benn kaamil guddi gi bu jullee geewe ba pare lay commencé di naafila xataa matlaul fajr après mu ko woor bokkul ak ahzab yi muy jàng yi mu jëlee màkk lu mel ni xisbu sayfi xisbul mughni xisbul baxri euh, asmaul idrisiya ak azkar yooyu bokkul ak tabarakallahu salawaat yi muy def yarfudu mu gedd kullan ñëpp ñëpp mbindeef yëpp da gedd bàyyi leen xal xalwatan ngir wéetal yantizaal yi ak beroom wéet nag mu jegi sax dafa am dëkk bu ñuy wax Chalaala euh, fala bàyyi famem euh, <clears throat> diggante salaala ak xasru abi Chamroun euh, quelques kilomètres la mu bàyyi njabootam fële nga xam ne day bu demee ci àll bi wéet ab diir après delluwaat ci njaboot gi gis leen delluwaat mu mel ni li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def moomit bi mu amee âge bi Cheikh na Tidiane am te muy 40 bi mu jege see 40 ans 38 ans 39 ans yonent bi daan na dem ci àll bi jëm 40 di wéetal boroomam bàyyi fa Khadija dellu sewaat toogaat ak moom ay fan delluwaat ci àll bi l'histoire se loolu mooy répétition wu histoire u Seydi Ahmed Tidiane moom it yarfudu gedd na kullan xalwata i'tizaalihi laa yartadi du d'accord illa al maali lu dul fi gaay yàlla daal gaay góor yàlla yi fa ñu yegg mu yegg fa bi daani ci jege yàlla mu bàyyi lépp ne daal fu gaay yegg danaa fa yegg loolu ci la nekk euh, à l'âge de trente sept ans trente huit ans trente neuf ans ba quarante ans quarante un ans quarante trois ans quarante quatre ans quarante cinq ans ba dugg a quarante six ans ci bii xaal la nekk naafila guddi gi woor bëccëg gi zikar ba utoon benn mbege boo xam ne nii benn cercle la weñ bu muy takk ci baatam bu ko takkee ci baatam toog di jaamu borom subhaanahu wa taala hakada bu demee ba nga xamee ne digg guddi gi mu ngi bëgg a jayaaxu pour nelaw loolu tendre euh, gorge bi bu ko defee mu yeew ndax nit boo commencé jayaaxu rek da ngay demee gauche wala droite léegi nag bu takkee cercle boobu ci baat bi wala mu jël benn buum takk ko ci baat bi ba pare takk ko ci kaw nit bi maanaam ci terrasse bi ci toit bi léegi toog ci sijaada gi nga xam ne bu demoon sax ba war a gëmmentu ndax nit dafa ànd ak loolu bu bu ne yi rek bëgg a jayaaxu loolu dafay teeŋ buum ngi ba yee ko mu yeewuwaat continue gi pas-pas ku mu jaral am yàlla yàlla nag dëgërewul ba ñàkk laa jox boppam ci ngay xam ne nit ku nekk fa mu war a toll ci yàlla noonu la pas-pasam di tollu ci moom gis nga maam Ibrahima bi mu waree doon xalilullah ca ësal jàll ko ci la ko yàlla may muñ goo xam ne nii lu ñu ko masa teg ci nattu nangu na ko moo tax mu ne mu nekk ci jaamu yàlla gu tar gi yow mii nga xam ne yaay soppeeb Cheikh na Tijaan yi kon war nga xam ne sa sëriñ ku sonnoon la lool ci jaamu yàlla ba ni muy faatoo itam ci loolu la kon nag boo ne Cheikh laa gëm après tëdd di nelaw dëkke ko kooku di nga jaaxal ñëpp moo tax mu ne xataa bi aami sittatin wa arbain bi mu demee nag ba am quarante six ans muy mille cent quatre vingt seize min umri yi ci dundam loolu ramzu wëli moom mooy junju wëliyu addaani bu jege yàlla boo jëlee wëliyu turu yàlla la waaye itam dina doon turu xaritu yàlla waaw bi six la lam bi trente muy trente six yaa bi dix muy quarante six quarante six boobu mu tolloog wëliyu muy xaritu yàlla bi ci Cheikh Tiyaani tolloo ci age nga xam ne daanaka dundam xaaj na ba teg dara xaaratuhu ci la ko choisir nag ci la ko tànn ak barul inaayatil ali gën ji magu mayu yàlla yi mayu yàlla yi ba ci gën a rëy moo choisir Cheikh na Tijaan yi mu kaw nan mu nekk huwal muxiisu mooy xettali lil ak akwaani ci mbindeef yi ndax ñu ngi ci axiru zaman bakkaar yi bari na pom bari na léegi nag destination bi nga xam ne moom la coobare yàlla aju moo di tabarakallahu mawlaana sidi ahmad tiyaani mii nga xam ne ci xal wala dëkk pour mu ñëw nag xettali jàmm yi wa daaka loolu mu ngi xew fii saxaara bu shamkhun ci désertu abu shamkhun ak shallala bi fatxil akbara ci fatxu gu rëy googu bil yaqdaani ci maanaam yëg maanaam doonul loo xam ne dañ naan fatxu bi dafa ñëw ci gént wala ñu ilham ko ko wala mu foog ko déedéet yàlla daal ci waxin bu doon dañ ko mën a wax dafa def benn réunion secrète mook xaqiqatul muhammad yee muy yonte yàlla muhammad ni ko axiru zaman jamono ju lëndëm na tilim na nit ñi désorienté wu nañ ci biir ak ci biti léegi lan mooy plan B bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam proposé ko benn sëtam bu ñuy wax Seydi Ahmad At-Tijaani yi sëriñ Abdul Aziz daan wax al amin ne yonent bi dafa xool charq ba fa bëtam yem mu xool garb ba fa bëtam yem gisul ku ko mën a rénover diineem ji ku du charq euh, ba fa bëtam yem gisu ko mu xool garb ba fa bëtam yem kenn la gis muy Seydi Ahmad At-Tijaani woo ko jox ko pour mu xettalil ko pour mu rénover ko diine islam loolu mu ngi xew ci fin douzième siècle jëm treizième siècle ku ne xam ne ne loolu bu amul woon tey jii jamono jooju na diine yàqoo woon bu continuer woon ci yàqu googu ba agsi fii ak ni mu yàqoo léegi kon kenn xam kenn du xam lu mu toll loolu dañ naan kon sax bala waxtu wi àdduna tukki ndax bakkaar bu bari mën naa tax yàlla précipité tukkal àdduna euh, léegi nag choix boobu bi mu daanoo ci jëmmam mu mel ni moom loolu la mas sentir bi muy ndaw ba sëriñ lu mu rëy rëy marte ba bu ko bëggee tee fenn mu nekk aw ma jot bu ko bëggee proposer loo xam ne ni dafay tëju giiru dundam mu nekk noonoo man dama am projet pour jariñ nit ñi te xëy na ci zahir loolu ñëwagul woon waaye tey jii nag décision bi ñëw na à lage de quarante six ans euh, kaw nan pour mu nekk huwal muraadu di namm ma yàlla lil xilaafati ci wuutu ko ci jaam yi fii til xaliqati ci mbindeef yi bilaa butaan ci lu benn lu dul dëgg yàlla moo choisir Cheikh na moo tax nit ñu bari dañ dul xam ne Cheikh na Tiyaani li mu doon maanaam moom sàkku ko da ngay gis nit koo xam ne day tëju xalwa boo waxee mu ne ba sàngam de laa bëgg am wala melokan sangam laa bëgg am Cheikh na Tiyaan nag diiru muy jaamu yàlla da doon jaamu yàlla parce que dafa war a jaamu yàlla kese wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni waaye nag chartu ci woon naa doon lii wala naa doon li moo tax waykat bi ne yàlla buur bi moo ko ko may ci tabam nde ñaanu ko ko falk suuf si ak asamaan jël mayam tasaare ko wallahu yàlla yuti mooy jox maa yasha lu ko soob maa yasha lu ko soob sahmahu ay mayam liman yasha ci ku ko soob yuti muy may nit bila xirmaani te du ko xañ kooku mooy Seydi Ahmad Tijaani yàlla moomu moy wahaabu ki maye gratuitement wal qudduusu moo sella lool amee sainteté mooy sellal ku ko sob war rauufu mooy ñewante jaamam yi euh, baaril balaaya moo bind mbinde fi xaaliqul insaani moo bind nit kon kii war naa mën a sañ nit lu ko neex wa may googu ak xilaafa googu ñu choisir Cheikh na Tijaani indil ko fathul akbar fadlullahi ngëneelu yàlla la yuti mooy may ma yurid lu ko soob liman yurid ci ku ko soob fii maa yurid nam ka soobee bil aani ci taxawaay léegi yàlla mooy def loolu léegi rek ci benn benn seconde mën na ci bés benn benn bouton nit ki changé ba ñëpp ñee ko te démb ba ñëpp dañ ko doon yërëm kon nag yàlla moomu moo bës benn bouton Seydi Ahmed Tijaani war a doon sangu jamono pour tout les temps moo tax mu ne yaa rabbi yow borom bi farda yàlla na nga dollee ngërëm te xam naa def na ko ñu tijaani ci saydi ahmad tijaani ahmadu ahmadi mii suñu ahmad euh, ma sahbihi ak ay saxaabaam wa ahlihi nuuraani ak ñoñ leer yi nga xam ne ñoo ko topp ñëpp ba addunay tukki kon wali yu gis maanaam moom liñ ko sant mooy mu jaamu yàlla ba am ciru wilaayam après jeex na ku ko soppa topp ko nga am tabaarakallahu ngëneel waaye amma Sidi Ahmed Tiyaani moom système la yàlla daf ko def benn système pour rénover ci l'islam ak képp koo xam ne bëgg nga baax ba adduna tukki nga topp ci gannaaw kon moom bokkul ak borom xam-xam yi nga xam ne jàng nañ ba am xam-xam après di jàngale am ay taalibe ñu topp leen wala sëriñ yu baax yi am mbooloo ñu topp leen déedéet kii yàlla ci boppam moo bëggoon fa tabarakallahu lu rénové l'islam mu ut benn système moo tax Serigne Cheikh daan wax ne Cheikh na Tiyaani euh, dañ ko dañ koo imposer li mu doon maanaam moom du moo ñëw naan am naa ci choix ak dañ naa ko yow yaay doon lii yaay doon xaatimul wilaayati loolu nag du dara sauvetage boobu du dara lu dul werd bu mag buñ ko war a jox yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam feeñu ko ci àll boobu ci digg bëccëg nga xam ne bu doon guddi gi mën nañ ne guddi la da doon jeneer bu doon suba teel gi noonu waaye daf koo def digg bëccëg limaam cheikh al xalifa doon wax naan bëccëg laa maanaam añ laa bëccëg laa sotti ñu jox ko ko nag ci bëccëg nga xam ne fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin ni wax yu bi wàccee woon bëccëg guddi ni wax yu bi wàccee woon guddi moom cheikh na tiyaani moom itam yonent bi mu ngi ko feeñu bëccëg pour jox ko loo xam ne moo war a euh, sauver adduna bi yëpp ndax ku ko jël texe yàgg koo am yal na yàlla fayal ñu Mawlana Seydi Ahmad Tiyaani hada huwa tawfiqu min indillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh